لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى sante sun borom subhanahu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikhul Xadim noo leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis tedd bi waaye di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nu tàbbi muy rajabul fard di weer magg màgg ngëneel weer wu barkeel weer wu am solo mata fonk jaamu yàlla ci diggante woor ak ya ñu di ci ndokkeel ñëpp ñaan suñu boom lépp lu weer wi làmboo ci ay ngëneel ak yow yàlla suñu boom sëmbatal ko ci noonu suñu waxtaan tey dañ koy jëmale rek ci solo si nga xam ne liggéey am na ko ci lislaam muy liggéey kër kër yi yëngatu ngir mën a fàgg lu lew dafa wàccuwaay wu mag ci lislaam ndax xam na ne lislaam dafay diine joo xam ne dafa boole yaar yëf muy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla mooy yewinal kërug ëllëg waaye liggéey nag mooy yewinal kërug tey dafa mel ni àdduna ab tool la alaaxira di kër ga di delluwaay ba kër nag ko fay nekk faaw daam loo fay tooge lay tax nga mën a toog ci kër ga day am lu tax lañu mën a tooge ci kër ga nag ca tool yi lay bàyyi ko bu bët sébbee nga dem ci sab tool gannaaw boo roojee ba noppi nga ji bay jaar fa mu war a jaar ba mu sotti nga góob soo demee ci kër ga danga fa mën a toog waaye su fekkee bët dafa sébbi nga dem ca tool yi tànn garab yi gën a sedd di fa yandu waxtu góob jotee danga ñettaane ñeetaane àdduna nag noonu la mel mooy ab tool la lañuy mën a toogee ci kërug ëllëg fii lañ koy fàggoo moo tax su di wax ne li la yàlla jox cim xel ak ci xeeti mooy lépp na nga ci fàggul sa kërug àllaaxira waaye bul fàtte sa kërug àdduna kon àllaaxira kon jaamu yàlla lañ koy waajale waaye àdduna nag ci liggéey lañ koy fàggule kon julli bi dafay boole ñaar muy diggante wakiirlu ak sabablu wakiirlu muy at tawakkul leena dañ ko jaawale ak at tawakkulu at tawakkulu mooy bàyyee sa mbir yàlla bàyyee sa mbir sa borom mooy gën da ngay da ngay def la la nga war mooy da ngay jaar ci sabab yi gëm nag sabab yi mënut ta maye danga nga jaar ci sabab yi mooy liggéey waaye gëm ne nag liggéey bu mënul laa may yàllaay maye loolu mooy wakiirlu tawaakul nag mooy yàccaaral wàcce ndi ko ne gënaa yàlla yàllaay may rek toog defoo dara jéemoo dara loolu taxu loolu tawaakulu la yàccaaral la waaye du wakiirlu loolu suñu tubaab di jàngale wax ne na nga xam ne fàggu dàqonte wut ak wakiirlu fàggu dàqonte wut ak wakiirlu mooy da ngay wakki da ngay da ngay sa mbir yàlla ba noppi nag jaar ci sabab yi mooy mooy kër kër yi doy na la sëkk ci ne wakiirlu mooy rek nga bañ gis ne eh, kenn du kenn yorul sa wërsëg dara yorul sa wërsëg lu may lu sa borom mooy bul gis na liggéey ba yor sa wërsëg wala sa yëngatu waaye da ngay gëm ne yàlla yor sa wërsëg te jaar nag ca sabab ya mu ne bàyyee fàggu nag bàyyee kër kër yi bàyyee liggéey ngir di wootee ne dangay lu ba noppi geesu nag ñay ñay liggéey di am nga dem geesoo ka di xemam ci lañ am ak di lañ ci ñee Sëñ Tuubaa loolu foo fi gis ak ndox la mooy xel mu gàtt la kon nagay lëkkal diggante charia ak xaqiqa moo tax yoon saa sama waxoon na ne at tawakkulu xaali wal iktisaabu sunnati fa man radiba an sunnati fa laysa minni man day wakiilu mooy sama mbir waaye nag fàggu mooy sama sunna muy yëngatu kër kër yi képp ko sib sama sunna nag bokkoo ci man yonent bi saa sam waxoon na ne kenn lekkul ñam wu gën a lew ci moom wu gën lim fàggu ci loxol boppam ndax yonent yàlla daawud alayhi salaam da daa jëfandikoo ci lum liggéey ci loxoom taab yonent la kon liggéey rek mooy mooy mooy kër kër yi eh, yëngatu bi doomu aadama yi taxaw ngir mën caa jële lu mën a lu mën a suturaale boppam waaye lu mën a itam dafa maslaxa diggam ak nit ñi ci taxawu leen ci dimbali leen taxaw ci seeni aajo te loolu mënee su koo jële ci ci ci ci anam gu set gu gu gu gu gu lew lu ma ci liggéey moo tax lislaam digle liggéey wax na ngeen tasaaroo ci suuf si ngir sàkk wërsëgu yàlla wërsëgu suñu borom fantashiru fil ardi wabtaxu ci kaw suuf si ngir sàkku wërsëgu suñu borom subhaanahu wa taala lislaam kon dafa jox liggéey xiima muy muy muy muy muy valeur wu kawe waaye noonu la ŋàññee itam jekki bañ a def dara ak wéeru ci ñeneen de xemam ay sarax wala ay may yu bàyyi ko ñoom jëm si jëm si ci yow ak tuur ga ngay tuur sa ndoxum xar kanam ci seen kanam moo tax yéen saa sam mooy tindikalu lool eh, lu mel noonu waxoon na ne maa yazalu rajulu yasalu naasa xata yati yowmal xiyaamati wala yasfiu ci musaatu laxm nit du dañ di laaj nit ñi di leen laaj di leen laaj ba bis penk buy decc du buy dekk du indaale xar du indaale ndawalu xar kanam ngir tuur gam tuur ndoxam xar kanam ci tàllal loxo ak laaj lislaam itam joxe ay misaal yu kawe kawe ci am solo liggéey ak yëkkati ko wàccu waayam xam nañ ne anbiyaaw yi ak musaloon yi ñooy ñi gën ci bindee fi suñu borom yi te ñu ñëpp dañ daa jànkuwanteeg liggéey dañ daa yëngatu di fàggu yonte yàlla daawut wax tudd naa ko lekk yonte la waaye mécceem tëgg la doon mécce woo suñu tàggatal ko weñ mu cee liggéey lu ne ki gën ñëpp mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ko yàlla bi nu moo la gën eh, eh, jaar na ci sàmm daana sàmmal waa Makka seeni gàttu ñu di ko fay waa jaan na ci mbeccum commerce it daana commerce ci alali soxna Xadija lu jiitu bi bi jël na jaraafam lu xadi mu wax xadi si mu wax ne dañoo laaj yontu saasam ne ko waaw ayul kas bi atyab gan fàggu moo moo gën a tey moo gën a lew mu ne amalu rajulu bi yadihi wa kullu bayin mabruur mooy lu nit ki liggéey ci loxol boppam ak mépp njaay moo xam ne njaay mu baax la njaay mu baax mooy njaay moo xam ne wor amu ca wuruj amu ca ndax amu ca wax ca lu dëgg amu ca eh, njaay moo xam ne sellal am na ca eh, ne moo gën ci fàggu ngir nag am solo googu liggéey am solo tax na yoon saa sama waxoon ci xadis boo xam ne am sunu moo ko solo mu ne in qaamati saatu bi yadi ahadikum fasilatun fa in istata an la taqum xata yagrisaha falyafal su fekkoon dañ ne àdduna gi tukki nii jamono ji ñu toll kenn ci yéen am lu njëmbat gu ne ci moom fekkee mën naa gaaw jëmbat ko balaa àdduna tukki na ko def kon loolu day wane rek am solo goo xam ne liggéey am na ko solo borom sama taala itam digal nu ñu tasaaroo ci suuf si itam ngir ngir fàggu fàggu wërsëgu suñu borom xam ne suñu moom mooy ki leen defal ay bunt ay yoon mën a fàggoo ci kaw suuf na ngeen dox ci biir suuf ngir mën a sàkkoo sëg suñu boom boobu lislaam yi doon soññee ci liggéey bu dagan liggéey bu yoonal te mooy fàggu ci xeeti majaalaat yu bari bokk ci lu mel ni mbay mbay dafay liggéey bu barkeel muy xéewal gu suñu borom denc ci biir suuf ndax xeeti li ëpp ci xeeti fàggu xeeti yi mën a jariñoo ci suuf la ko suñu borom denc boo xoolee mbay meññet la mu suñu borom denc ci biir suuf bu dee itam pétrole bi nga xam ne mooy koom bi gën a kaw yi fi nii mi ngi ci biir suuf bu dee or mi ngi ci biir suuf bu dee jamaa mi ngi ci biir suuf kon xéew li denc ci suuf bari na lool waaye na fa eh, suñu borom mi la ko mi la ko dencal nag yow nag yaa def yaay def sa yëngatu bopp nag ngir mën a fexe ba génn loolu jariñoo ko te bay bokk ci yi ca ëpp solo am suñu maalik nag yoon saa su na ne maa min muslimin yaxrisu xarsan aw yasran asraan fa yaakul minhu tayrun aw insaan aw bahimatun illaa amul menn nji wala njëmbat mu doomu aadama mu ab jullit jëmbat wala mu ji ko picc lekk ca loolee wala bàyyi ma wala doomu aadama lu may sun boom dina ko defal yoolu sarax commerce itam muy jaay yaxantu jaay jënd bokk ci itam ci liggéeyu barkeel yi te mooy jëflante ci weccoo kiy joxe lii kee joxe lee muy lu ñu xam bokk ci dama xam ne itam Euh, ci ci na buñ ca moytoo lépp loo xam ne dafa juyoo ak sharia njàngaleem sharia moytu ndi ko ci riche muy di ca jar lu ca bokkut moytu ca riba moytu ci lépp la lu yóbbu ci lekk alal ci ak nen moo tax suñu boom ne yéen ñi yàlla bu leen lekk seen alal ci seen diggante ci ak nen lu may dafa nekk am yaxantu moo xam ne yéen ñaar ñëpp gërëm ngeen ki jaay gërëm na ki ki jënd gërëm abi sayyid wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne attaajuru saduqu ma annabiina wa siddiqina wa shuhada commerçant bu dëggal jaaykat bu dëggal rafetal ca na muy jaaye bis bañ ci ëllëg yonent yi la ko yàlla booleel ak siddiqu na ay shuhada yu loolu na kon di dara ju mag a mag kon ka yëngatu ci jaay jënd kon war naa fexe ba sellal ko rafetal ko bañ caa dugal lépp loo xam ne lu ca bokkut la ak bépp liggéey bu mën a doon rek moo xam koy liggéey ci usine wala xeetu fag gu mën a doon rek gu dagan lislaam soññee na ci eh, yëngu ca kon lislaam dafa xool liggéey kon eh, bëtub eh, ma bëtub màggal màggal liggéey yëkkati xiimaam tàkkee ko ak tiraanga def ko mu nekk itam farata joo xam ne dañ ci yoolam nit ki maanaam bu ko defee te sellal ko suñu doon du ko ci defal ab yool ndax kiy liggéey tey jaamu yàlla moo gën fa yàlla kiy jaamu yàlla te defu te deful dara moo tax sunu wax ne bu ngeen jaamootee yàlla ba noppi na ngeen na ngeen liggéey fa ida xodiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah saa bu ngeen julleetee ba noppi rek jaamu yàlla fu mu jeexee rek dem leen tasaaruñ ci sunu dem dem dem wax ci xadis xussi ne <coughs> wala amalu fil islam taarixun ila magfiratillahi taala liggéey ci lislaam daal aw yoon la wu yóbbu nit ci njégalu suñu borom ak yéen ma dem waaye lislaam nag lu mu mën a doon lu nekk da ko wutal ay teggin kon lu ci nekk nag sàmmante ak teggin yi dana tax nga mën caa jële yool ba ca yool ba suñu borom digge ca loola liggéey dafa am ay teggin am na juróom-ñetti teggin yoo xam ne kii kay liggéey war naa sàmmante ak moom ba ci njëkk mooy di jiital yéene yéene dafay lu am solo lool ci jëfi jullit la ci jitu mooy yéene ne man mii ko li may fàgg fas naa yéene mu doon lu lew fas naa yéene ci tàbbal lenn lu xaraam jublu ci it mu doon looy looy looy sukkandu ngir mën a jaamu yàlla ma gannaaw gannaaw mën a balaa nga mën a jaamu yàlla da ngeen foo wéeru da nga ci jublu am loo mën a jàpp ba mën a jaamu yàlla nga xam loolu nga cee yéene doo ko def ngir ëppalante wala ngir bari la waaye doo ko def ngir rek mën a jaamu yàlla ak nga nag ngir dundal suuf si ak dundal suuf si ndax sunu borom moo ko dégle moo tax shaayir boo xoon ne ñeenti yëf yii kat kuy liggéey war naa jiital ñeenti pas-pas ñeenti yéene ba ci njëkk mooy li ma waxoon léegi mooy fas fas yéene lépp li tàbb ci sa loxo ci liggéey bi na mu doon lu dara lu xaram wala riba bañ mooy nga yéene ne fas naa yéene kat lii may fàggu boo sunu borom joxee saaba ca àq jullit waaye dinaa ko yéen mooy saaba ca asaka waaye dinaa ko yéen jox ko seeni borom ñetteel mooy nga yéene ne euh, man ka dama koy def ngir mën a jaamu yàlla damay liggéey ngir mën a am du ma mën a jaamu yàlla ñeenteel mooy nga yéene am pas-pasu dimbale ci jullit ñi loolu la wax ne talabu xellin wa adaa mulzami awnun ala taati nafu muslimi ñeent yooyu la ci yéene kon ñaareel ba mooy ñaareel teggin mooy bañ a liggéey bi ci waxtoom su fekkee da ngay jëflanteeg nit di ko liggéeyal mooy del xëy waxtu di wàcc waxtu ngay sàmmante waxtu ya nga war a xëy di wàcc bala ngaa wàcc itam na waxtu nga ci jot waaye su da ngay jëflanteeg nit di ko liggéey mu di la fay eh, waxtoo nga war a xëy doo ko doo doo doo doo ko xëy balaa wàcc jot nga wàcc su la fayee yaa nga lekk ak jom moomut kon sàmmonteeg liggéey ba di bañ ko yeexe di di ko di ca dox ca waxtu wam laaj bañ koo yeexe lu am sol la wax nañ ci xikma ne laa tu axira amalal yawmi ilal gadi lu ñu war a def tey bu ko néegi suba di teel a xëy it ñun saa su daana ñaanal ñiy teel a xëy wax na ci ay ñaan ne allahum baari li ummati fii bukuuriha su noonu yàlla na nga barkeelal ñiy teel a xëy ci sama sama xeet na leen barkeel Tirmisi ak Ibnu Maaja solo xadis boobu ñetteel ba mooy nag farlu ci liggéey ba jox ko yitte soo dem di liggéeyi nanga nga ànd ak cawarte nanga nga ànd ko farlu bañ a yaxantu bañ a tayal fa man jadda wajada wa man sara xasada kon jox yitte liggéey liggéey bi yitte jamu laaj mooy itam bokk na ci li nga xam ne des ko sàmmonte ndax nag ndi nam sonne rek na lay na lay na nam sonne na lay mbiram di demee na la sa sa kaw di toll la saayir boo xoon bi xadril kaddi tuktasabul maali fa man talabal ula sahiral layaali wa man talabal ula min gayri kaddin adaa al umri fi adaa al umri fi talabil muxaali adaa al ci kem na nga ni nga ni ngay fàggoo ak kawe fa sa borom neen kon nag kii sàkku kii sàkku kawe faaw mu jéem muñ nelaw guddi waaye kuy sàkku kawe nag te nanguwut a sonn ba sànq nag dundam ci sàkk lu lew loo ne lu ko jomb la kon ñu ngi taxaw fa benn incha allah ñu àggal li ci topp yàlla na sunu borom bool dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna